man su ma déggee ci say wax en fait wala ci yi ngeen a xamee ne moom ngeen di défendre yéen à chaque fois mbirum politique politique politique politique politique rek ngeen di gérer mais tey dañuy gis ñaata nit lañ fi rey ñaata nit lañ fi violé ci ay jigéen doo leen jóg doo leen def ay marche doo def dara. pour ñu teg leen ay daan. non tu me diras que peu féministe. non non du tout du tout mais man maa la gën a féministe. bah voilà mais yow leen ci jóg jamais c'est toujours politique. yow def na lii kii def na lii ci lañ leen di dégg mais ci ay yeneen affaires yi non non da ngeen di toog ngeen sedd seen au contraire boo xoolee par exemple dossier euh, Diop ISEC bi mhm. kilifa amul lu mu ci deful tout le monde le sait quoi c'est que yooyu ay cas isolé la waaw mais parce que voilà mais c'est des la quand on quand mhm. une fille dañ ko ñaawlu le mhm. violeur état euh, dafa war a ay dispositions parce que jigéen quand même ko loolu dara gënu ko garaaw ñooñu moom waxuma maltraitance aussi yi nga xam ne yëpp mu am ci dëkk mi bi yéen duñ leen dégg jamais ngeen yëngatu ci côté boobu ci wàllu yooyu noonu si si si c'est que loolu c'est pire pire lu gën a grave même dans certaines localités du pays par rapport à l'excision on le condamne et on demande aux gens d'appeler au téléphone à la police bu fekkee dañ leen bëgg a exciser wala ñu bëgg leen defal mariage alors que egguñu ci âge bi ñu war a marié mmh. on le fait mais c'est que c'est des choses yoo xam ne yooyu du utilité publique donc du coup. du yomb utilité la nag. oui du yomb du yomb utilité la nag utilité quand je dis utilité publique. Mhm. c' est pas du même dimension ak par exemple bradage du foncier nga xam ne. Mhm. Sénégal yëpp ci mbokk maasandoo. di mhm. nga problème de viol nous sommes toujours dans un pays où y a plein de choses yoo xam ne ba léegi gars parce que est-ce que nit ñi mais nag il faut nit ñi di ci jóg justement di ci wax pour que mu bañ a nekk mais nit ñi xamuñ sax ne tu peux violer ta femme kii nga takk jabar yow mu nekk sa jabar bu nga ko violer les gens ne savent même pas ça mais dañ leen war a xamal kon justement c'est des débats tellement tabous dans mhm. ce pays là mhm. il faut que ñu dindi tabou boobu sur certaines questions mhm. mais pour être sincère et honnête ñi ngi ciy wax ñi ngi ciy jël man mii personnellement j'ai subi des abus sexuels quand j'étais jeune et j'en ai parlé froidement et ouvertement nëbbuma ko parce que les gens pensent que par exemple le cas de pédophilie c'est juste entre ku jigéen ku xale bu ndaw bu jigéen ak benn mag bu góor. Mhm. mais man je l'ai subi une dame moo ma ko def. donc et j'en ai parlé publiquement. nëbb ma ko dame bi mag la woon wala. oui mag dama lu bëri. et je j'allais j'ai j'ai pris mon courage à deux mains d'en parler. pour dénoncer mais mais pour non seulement pour dénoncer oui j'en ai j'en ai parlé longtemps j'en ai parlé. soso tu avais quel âge. oui six sept ans c'est la c'est jànk buy liggéey si kër lay doon tu vois. Mm-hmm. donc mais mais mais da nga yëg ci kaw ndaw si. <laughs> bon pour éviter euh, pour ne pas rentrer dans le détail de de scène yooyu c'est oui sakku laa mënu ma xam je suis désolé mais xale laa xaw donc mais màgg ak ak loolu ce truc non seulement ça m'a travaillé mais dama mm. dem sama benn kër xarit gis doomam suy wax ak moom su ko ji faalewu da ko naan damay oo faatu de maanaam day woo jànq bi mm-hmm. donc doom bi ah, jànq bi la ragal ça m'a rappelé mm-hmm. que man sama sama sama sama enfance je me suis compte tiens kii il est en train de de une étape de, l'éducation de son enfant. Il faut que nous veillions sur ces choses-là. Je l'ai dit permettre aux jeunes qui vivent la même chose aujourd'hui mhm. d'avoir le courage d'en parler, de ne pas avoir honte d'en parler. Parce qu'un habit, c'est un habit. Mais foofu laay waxee ma vraiment on en parle quoi. Mhm. mais sauf que les gens ñoo ñu mhm. parle que de la politique mais quand on parle du foncier. mais boo leen fi taxawee nag ne sénégalais yi ngeen tax mais moom laa la wax mais moom laa la wax ñu ngi ciy problème bi mooy dadul am même tollé par exemple quand on plante 4000 arbres ci littoral bi ko littoral est bi mhm. ko pourtant les médias étaient là-bas quand on réhabilite les sociaux les centres de jeunes mhm. quand on permet à des femmes de groupement de femmes dans les dans de am am ay financement ñu mettre leen en microcrète ñoom seen biir ñu organiser leen defal leen ay formation ay atelier ay capacité